salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum diaspora salaamaaleykum mbokkum taalibe yi waaye maa ngi nuyu sama buntu ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim di sëriñ mu Mountakha siir di ko ñaan yàlla yàlla guddal fanam noonu laay nuyoo sama buntu ci sëriñ Saaliw di sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw di nuyu àdduna yëpp tiijaan xaadar laayeen sama mbokku chrétien yi bàyyiwuma kenn soxna ay daa ngi ziyaar ñëpp di balu ñëpp ak di ñaan na ko ñëpp baal baal na ñëpp waaye nag tey moom. naqar dëggi dëgg dëgg dëgg naqar a nekk ci sama kaw tay tey tey journée journée ça va pas journée ça va pas moo nekk tey. muy ajaratu boobu mu génn àdduna tey tey allah ñu gis ne Sénégal yëpp ko métti di tey Sénégal yëpp la perte ñu gis tam aussi vraiment mu nekkoon ci milieu bi ak yéen di liggéey li nga xam ne euh, mooy seet tey boo ñu wax sa relation ak moom wala lan nga xam ci moom lan ngay wax. waaw sama nawle mhm. moo dem mhm. sama ku ma bokkal liggéey moo dem mhm. ku ma nawloo moo dem koo xam ne dama ko nawloo lool li tax ma nawloo ko nag du dara lu dul bëgg sëñ tubaa gi bëgg sëñ tubaa waaye nekkoon koo xam ne it day béggal doomu aadama yi waaye daba booy nekkoon koo xam ne tamit euh, euh, nit ku am solo la ci vi parce que nit ki bu dee da ngay liggéey li ngay liggéey kenn musu la ci fekk ak lu ñu lay yeddee wala musoo cee def erreur bu la nit di constater kooku jar naa naw te man bokk naa ci ñu ko naw moom Daba Boye di ko ñaanal yàlla yàlla na rëccu lu mu doon def àdduna ndax li ko dal deful yàlla li tax mu jëlee ko fi waaye ñu ne defaluñu yàlla li tax mu bañu fi matal dem lanu ñu wax waaye dem gi moo metti ki dem mooy senegal ki dem mooy liggéeykat vaillante ki dem mooy sama nawle ki dem mooy ki nga xam ne sama xolu askan wi yëpp bëgg nañ ko waaye bëgg nañ bëgg nañ ñëpp ba fesal ko waaye bëgg na sëñ fàllu ba dem waaye bëgg na yenent bi ba dem ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla xippee ko àjjana na ko yàlla jéggal na ko yàlla yërëm na ko yàlla xare àjjana waaye nag mu war a defaat beneen jàngat seetlu ci ñu ñu des àdduna xam ne àdduna mën nga dund téeméer waaye yàlla ci ay waxtu la lay jël kon na rafet nañ yéeneente jàmm nañ delloo si xol yi nañu yàlla defal ñu am suturay àdduna ak sutura àllaaxira waaye ay mbokkam yeneen yàlla may xolu muñ waaye képp kuy liggéey ci presse di yor micro wala nga yor caméra maa ngi la koy jaale ndax Daba Boye kat yow mi tey am nga loo yëg man am naa lu ma yëg ñi daan seetaan am na lu yëg waaye di ko jaale Bougane Gueye Dany di ko daa jaale Pape Cheikh Diallo di ko jaale Momi Dany di ko jaale sama doom Waly Seck ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa amoon cofeel ci ñooñu waaw kon ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale sëñ Cissé mu sëñ Babacar ndax tuddee na ko doom keroog tudd ma man mi maa nga fa toog tey jii laay doog a xamaat ne Daba Boye ah sëñ Fall Mbawor la te man sama jëkkër ah, sëñ Fall Mbawor mooy sëriñam ah, kon xam nga dangay ngay nekk nit àdduna waaye liñ naan ku dee feeñ <laughs> yàlla nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla sàmmal njaboot gi tey nag Sénégal yëpp tiit nañu xel yëpp tamit dal na ndax jëf na lu rafet ba dem maa ngi koy ñaanal yàlla muy lu ma tibbee ci sama xol am naa lu ma yëg lool tey <laughs> tey bokk na ci jour yoo xam ne ça va pas. ça va pas ndeysaan Ah, mën na nekk waa xam nga man lépp luy ñëw ci réew mi suñu borom daf ma baaxe mm-hmm. ci don boobu laa am mm-hmm. ndax suñu borom moo ma sàq def ma may soxna Aida moom Serigne Saliou jaar naa ci bébé jaar naa ci xale mm-hmm. jaar naa ci jànku jaar naa ci jeeg jaar naa bay dugg ci magal kon sunu boroom mooy namm li ko namm ci jaamam mu def ko munoon na maa def naar mbaa mu def ma libane mbaa mu def ma leneen mais daf ma def soxna Aida mum sëriñ Saliou bi ma ko defee ba pare nag am lu mu def ci sama jëmm jeeg sama deret ji mooy di ma déey dama géntoon ñu nekk ñeenti seetkat yu jigéen fii ci réew mi duma ma tur moo tax ci biir vidéo bi bi ma gisee li ma gis ma ni leen mun na doon sax man waaye man day dinaa saraxe parce que Sénégal booy wax benn déclaration parce que bu doon góor ñi damay cité benn góor ku ma yàpp jaarale ko ci moom wala ma ne sama càmmiñ wala sama baay bi mais daf ma wan ne jigéen la te ci ñun la bokk mu won ma firnde yu leer boo xoolee ci biir fin bi journée boobu bi may yeewoo dama ñuul kukk waaw man su ma yàlla wane yenn kéem yi su ma yeewoo damay soppi damay ñuul moo tax bi ma xëyee jour boobu dama sol blanc dama lëmasoo mël fa bu weex ñuul kukku def déclaration bi maa ngi ko defee woon sans limite boobu sorewul ak caba bi mu gaañoo ci laa ko def ma ne nag euh, ñun ñu ngi ñëw ku dugg sans limite rek boo tappee video bi ci internet bi rek dinga gis vidéo bi fi mu nekk ci fin de vidéo bi di nga gis li ma fa waxoon ak maire yi wax ma wax ci lu bari ci li ma suñu borom won rek ci laa wax ndax réew mi missionnaire laa fi ba tax na lu bari suñu borom daf ma koy wan ma sant ci yàlla bu wér a wér a Euh, ci laa waxee woon ne suñu mbokk muy liggéey lii yàlla dina ko moom nañu rafetal waaye képp kuy liggéey li may liggéey na nga saraxe bëy bu xonq bëy bu xonq boobu mu ngi surfe woon ne dafa ma wan nit ku xees mu nekk nag boroomi kéemtaan parce que man ku narut am kéemtaan wala suñu borom dimbaliwu la man duma la gis ci samay mbir moo tax la ca gis lépp daal man rafet naa ci njort li am am na waaye sante nañ ko yàlla sunu borom yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal li nga xam ne tey mooy sa yeneen mbokk voyant yi nekk ci sant yi ci Sénégal bi set lan ngeen di wax tey parce que lii vraiment aussi daba dala soxna Daba Boye macha allah ku baax la